garab yu baax la yomb te wóor te ngeen soxla ko fépp fu ngeen nekk te mu jëm ci ñëpp ñu xamal leen ne naa mu ngi ci région yi nekk ci Sénégal yépp lu jëm ci wàllu campagne bi ñeel wàllum ñaax ak taxawaayu askan wi ci mbas mi di Covid 19 seen émission meilleure santé di leen dig ab daje dimanche juróom-ñaari fan ci weeru février bu 12h jotee jàpp 12h30 ñu fas yéene waxtaanee ponk bi ñeel dajaloo bi naka la mën a lawalee wopp gi di coronavirus di ab production bu leen may mën a saar di digtal ñu ciy dalal ñi seen xamxam xam màcc ci wàllu woowu dimanche lay doon juróom-ñaari fan ci weeru février bu 12 jàpp 30 ci Afia FM ci seen émission meilleure santé. mbas mi tàmbale ci réewum Sénégal ñaari fan ci weeru mars ak léegi si médecin yi dañu dëkk di wax ne mbas mi di Covid 19 wallante bi dafa gaaw lool ba tax na nag ngir ñu mën koo xeex a faw ñu moytandiku dajaloo. di dandante benn mètre waral nag nguur gi jëloon ay dogal ay lépp luy dajaloo tey ñaax itam askan wi ñu sàmmoo ko mesure barrière yi waaye nag ci weeru septembre jàpp octobre cas yi di wàññeeku nguur gi jëlaat dogal woyofal mesure yooyu le ñu dugg ci weeru novembre cas yi di gën di wàññeeku ñu dem bay am fukk benn fukk jàpp juróom-ñeent ci ay cas coronavirus par bés sénégalais yi daal di bàyyeeku dajaloo gi tàmbaliwaat ci ay ngénte takk plage restaurant yeeg baax yi boobee bàyyeeku nag jur tey ji ñaareelu pàccum mbas mi di covid 19 bi ñu duggee ci weeru décembre ak léegi lim bi am jàngoro ji di gën di yokk bés bu nekk ci weeru décembre ak janvier ci la lim bi ñàkk seen bakkan sax ci mbas mi gën a gën a takkarnaase ci weeru janvier rek réewum Sénégal lim na lu toll ci ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ci ay doomu aadama yu ñàkk seen bakkan ci mbas mi nguur gi nag ci la jëlaat ay dogal yu yees jaarale ko ci arrêté numéro an bu juróom benni fan ci weeru janvier ci atum 2021 di xam xamle ne na ñu lépp luy xew-xew ak dajaloo ci ndakaaru bokk na ci plage yi terrain yu ñuy amale tàggat yaram bërëb yi askan wi di tase ba ci saxa salle spectacle yi ngir dakkal mbas mi ni mu gën a gaawee ci réewum Sénégal la mbas moomee di Covid 19 dajaloo bokk na ci li koy gën a lawal ponk boobe sax la ñuy waxtaanee ci bile production nga xamante ni rajo Afia FM ci lëkkaloom ak URAC ak fondation Hirondelle ci ndimbalu Union européenne moo leen koy jagleel ci jàppale gi ñu jàppale nguurub Sénégal ci xeex bi nu jaglel mbas mi ñu fas yéene jox kàddu gi ñi seen xel màcc ci jëm ci wàllu wér gu yaram. kilifa gox goxaat yi kilifa diine yi waaye te politique yi. ministère de la santé l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim. bi mbas mi dugg si ci réewum Sénégal ba tey bés bu nekk nag ministère bi yor wàllum gu yaram dina génn xamal askan wi fi mbas mi toll El Hadj Mamadou Ndiaye directeur de la prévention. ci ñaari junni ak ñett téeméer ak fanweer ak benn test yi ñu def ñett téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci benn cas bi jóge bitim réew mooy importé te mu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne Diass am nañ ci tamit ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñi nga xam ne ñoom la ñu tuddee kaa communautaire mooy ñu jot ci mbas mi fekk xamuñu fi ñu ko jëlee wala ki leen ko wàll juróom fukk ak ñetti malade ñoo nekk réanimation juróom-ñaari malade ñoo ñàkk seen bakkan ba su démb alxames ñeenti fan ci weeru février mi ñu nekk ñi des hôpital ñu ngi am ci bésu tey dalee njëkk ba Sénégal ñaar fukki junni ak juróom-ñett ak téeméer ak juróom-benn fukk ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu ñaar fukki junni ak ñett ak juróom-ñaar fukk ak ñett wér nañ ci juróom-benn téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ñoo ñàkk seen bàkkan mu des ñeenti junni ak ñett téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn si lalu hôpital yi ak ñi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi. yooyu chiffre di wane ni mbas maa ngi gën a law jamono ji ci réewum Sénégal donte sax jëwriñ bi réew mi aaye na lépp luy dajaloo ngir mbas mi bañ law waaye terewul nag jigéen ñaa ngi wéy di nëbbatu di amal ay dajaloo jaarale ko nag ci ngénte yeeg takk yi loole nag dem ba jur ay doomu aadama yoo xamante ni ñàkk nañ ci seen bakkan mu di ñett ñoo xamante ni ñoo bokk ndey ak ñu demoon xew mbas mi toppee leen fa daaneel leen faat leen ñoom ñett ñëpp loolee sax moo firndeel bile reportage bu Fannagay na ginnaaw bu ministre de l'intérieur jëlee ak dogal tere yenn ci dajaloo yi ngir mëna xeex jàngoro ji di coronavirus waaye ci wiken bi ñu génn taxaw seetlu bi mooy xew yi dañoo bari lool bu ñu sukkandikoo ci Khady Ndiaye jàpp ne lu waral bari waaye xew yi ci weekend bi ñu génn moo di ne gars yi dañoo gëmatul bile jàngoro. bëri dañu ko ignoré ki nekk nag am nga say raison mais pour la plupart ñi nga xamante ñoo si affaire bi affaire de la politique moo ko lal loolu moo ba nga xamante ni mesures yi ministère bi da koy joxe jëfee ko day xaw a jafe lool sax Aïssatou di xam la ne si jamono ji ñu toll du yomb benn yoon sénégalais bàyyi yi la xew eh, nit ñi duñ ko bàyyi ministre bi day wax dong waaye moo gën a xam ne nit ñi bàyyiwuñu xew bi ak juuma mii muy def nii kenn du bàyyi xew nit ñi dañuy xew de waaw muy ay kàddu jiwaarloog yu soxna si di wuyoo si turu mami moom lu mu jàpp mooy ku li ne sangul sa taar la la bëggal. jeudi yi ba léegi mi ngi tere rassemblement yi te weekend moom dafa mel ni nit ñi dañoo gën a yaakaaju te feebar bi am na man ma yaakaar ne nit ñi dañ koo gëmul te lu am na ku ne la sangul sa taar la la bëggal man laa suma sañoon nit ñi jëlaat mesures yi di raxas loxo yi di takk masque di éviter rassemblement yi surtout maa di sóor suñu doom yi xam ne dañuy xëy dem école ñoom jar nañoo sóoraale bu baax a baax a baax. ci fàttali alxames bii ñu weesu la jëwriñ bi ñu dénk wàllu kaaraangeeg réew mi jëlee woon ak dogal daal daal ne nañu bàyyi yenn ci ay rassemblement waaye mu mel ni askan wi nanguwuñoo wéyee bi la ndigal. dajaloo yu ni mel nag ñenn ci askan wi naqarlu nan ko ak fi réew mi toll ñuy jànkonteel mbas mi nga xamante ni mi ngi wéy di faat ay doomu aadama ci réewum Sénégal ñoom askan googule sax di yëkkati seen i kàddu. ci bile Vox Pop. am nga fi mu nekk ni Covid bi képp ku am xew war ngaa xalaat ne wér gu yaram kenn amul njëgam te toll nañ foo xamante ne prévenir moo gën guérir te lu ñuy wër kenn xamagul fu mu nekk boroom kër warul bokk ci li koy provoqué yow da nga aar sa bopp aar sa njaboot comme ñëpp yaa yor seen responsabilité yenn yi sakkanal sa poche la sàmm sa bakkan la ak sa bakkanu njaboot. boo gisee nit ñi di gën a incité léegi si xew yi dañu lable woon seeni ndawtal ndayale woon sama doom kii ak daf war a indi teraanga ak moo tax ñu gën a incité xew yi ñi nga xamante ni mënuñuy fee ñàkk bañ a dem ñu nañu protéger ñu jël seeni masque ñu masque parce que tamit euh, feebar ngi si dëkk bi tamit de jot xaalis feebar amul benn njëriñ da ngay toppatoo sa santé ba pare nga soog a wuti leneen avant tout santé jigéen ñi nag ñoom kenn mënul leen dara pour ñoom gëmuñu affaire bi te bis bu nekk gis nañu affaire bi nu muy reyee ñoom seen bopp ñoo war a taxaw ñoom ñooy yaayu xale yi ñoom ñoo xale bu ñu génnee ci mbedd bu ñëwee ci ñoom la ñuy jubal donc nag bu ñëwee ci ñoom bu ñu feebaree bu ñu dee nag mu bàyyi fi seen njaboot rek mariage yi ñuy def wala ngénte loolu a bàyyi a def loolu ci état la parce que lii bu fekkoon na ne dañoo amoon ay nit ñoo xamante ne dañ a jël teg leen ci ci biir dëkk bi ñuy wër di contrôler ku ñu gis ngay xew-xew boo xamante ne du yoon ndax la mu fa gis ay nit man sama jëm bopp damaa tiit te loolu du yoon te ñu nekk ci événement bu mel ni bu dee dëgg la wala du dëgg nañ corona bi am na wala amul mais nañ ko moytu koo gis mu ñàkk bañ a sangu fëgg ko ba mu normal mbaa ñu amande ko xaalis boo xamante ne juróomi junni wala cinquante mille jël kay xew ñu yenu ko yóbbu ko gendarmerie tàpp ko ba muy bëgg a dee bu ëllëgee keneen bu xewlee du ko def ñoom les chefs de quartier luy seen njëriñ du loolu ñoom bàjjenu gox yi luy seen njëriñ du loolu bu ñu gisee lu dul yoon nañ ko dénoncé bàjjenu gox yooyee sax daal dinañuy yëkkati seen kaddu xam le ne ñoom nag ñoo askan wi ñu respecté bu baax a baax mesure barrière yi Badiane Diabou Touré di njiitu Badiane gox yi fii ci diwaanu Grand Yoff ñoo ngi ci sensibilisation bi de ñu ngi ci sensibilisation bu baax de ñu ngi sensibiliser de ci biir suñu euh, groupe WhatsApp yi rek la ñuy waxtaan wax bàjjen rek da leen sensibiliser nit ñi bañ leen a ñu ñuy def distance di raxas seeni loxo waaw di di comme ñu daan wax rek bu njëkk niñ ko doon def rek waaw bi ñuy def barki dem suñu conférence de presse bi rek ñun rek war nañu wane ne ñun bàjjen ñoo ngi ñu ngi ci num te dañu def distance ba pare takk suñuy masque ñëpp pour woon askan wi ne la loo mënti def ci àddina te dañ doon wax sans ñu wàccee di dox di wax di dindi seen i masque man je ne comprends pas da nga bi mën nañ ci wax nañ waxante dëgg baax ñu sensibiliser wax dëgg yàlla ñu ngi sensibiliser ñu wax ba tey ak raxas man jusqu'à présent chez moi dama teg sama sama ndox ak saabu bi ci sama budduka waaw ñëpp nañu def loolu te moo nekk seen kër parce que ba tey ñun dañ koy waxtaane pandémie daal moom yokk na yokk boo xam ne kenn xamul ndax nit ñi dañu gëmatul xamuñu daal mais ñu ngi ci sensibilisation bi daal vraiment ñu ngi sensibiliser Fatou xanaa ñu gën a yokk rek waaw gën a ñaaxaat bàjjen ñu wax ak askan wi rek loolu rek la sinon moom vraiment gën a waat daal bàjjen daal ni mu continuer baax. dajaloo googee sax mënees naa lawal bu baax a baax mbas mi ci réewum Sénégal bu nu sukkandikoo ci ay kaddu docteur Cheikh Diédhiou xam-xamam màcc jëm ci wàllum santé publique. OCT donc dajaloo bi tax na ba feebar bi gën law ci dëkk bi bu ñuy comparer donc bu njëkk ba nit ñi dañ doon respecter mesures barrières yi dañ doon wàññi di dem ay mariage donc marché daanul fees noonu mu amoon xew sax nit ñi duñ fa bëri depuis décembre ba janvier dañoo seetlu nii donc nit ñi dañuy delluwaat ci li ñu nekkoon dajaloo nan lay lawalee feebar bi jar na ñuy expliquer nit ñi pour ñu ci seen xel d'abord dajaloo mën na am ci anam yu bëri mën a nekk sëy bu ñu organiser mooy mariage mën a nekk également dëj donc donc dese bu amee nit ñi mën nañ fa tase gis ñu bëri mën na nekk garage nit ñi war a dem voyager loolu également dina créer situation dajaloo mais mën a nekk également juma juma yi ñu organiser wala jàkk yi donc ñu organiser donc pour prières yi mais mën a nekk également jàngu wala donc église aussi nekk ay cérémonie religieuse comme ay jàng daayira comme ay magal ak li ni mel dajaloo yooyu il suffit mu am benn nit koo xamante ne dafa feebar ku yor jàngoro ji kooku mën na sëxët mën na tisoli wala mën a nekk en contact donc jégalanto bi aussi mën na nekk benn moyen bu ñuy transmettre feebar bi ensuite nit ki ñëw ci mbooloo te solul masque loolu également mën na indi feebar bi. marché bokk na ci bërëb yi nit ñi di dajaloo ba na nag ci ñaareelum pàccum mbas mi ñu jëlaat ay dogal ci yooyee marché ci gox yeeg goxaat yi ngir mbas mi bañ a gën a law ci réewum Sénégal basiru Samb chef de cabinet bu maire bu Grand Yoff di ci indi ay leeral la. ginnaaw bi état bi déclaré état de catastrophe naturelle. Mhm. gouver ministre de l' appliqué ko gouverneur wàcce ko. Mhm. ci le préfet de Dakar en concertation avec les dix neuf communes de Dakar. ñu harmoniser ndoo décision yi cette fois-ci ce n'est plus une décision boo xam ne Grand Yoff day jël Parcelles jël leneen wala Patte d'Oie jël mais ñoom dix-neuf communes yëpp dañoo harmoniser décision yi pour qu'ensemble ñu mën a xeex boo xeexandoo mbas mi parce que jàpp nañ ni tey département de Dakar c'est l'épicentre de la maladie mm-hmm. cas yi li muy bari bari ci réew bi li ëpp mi ngi ci département bi donc il nous faut harmoniser nos mesures pour qu'ensemble ñu mën a xeex doomu jàngoro bi maintenant xeex bi dafa am dañuy nekk ñaari front front xeex mbas mi waaye beneen front bi mooy bañ a nasaxal suñu économie. Mm-hmm. ñëpp xam nañu économie informelle bi li muy joué moo tax ñu woo par exemple grand vendredi ba passé dajee nañ ak délégué marché yi ñu àndandoo waxtaan jëlandoo décision bi ñun ñëpp nit 6 heures du matin marché bi tëj 18 mu mu tëj dimanche ñu tëj ko pour des mesures de sécurité. donc loolu nag c'est vrai que jàng nañ ci première phase bi amoon na ay manquements waxtaan nañ ci avec les maires waxtaan ceeg préfet pour qu'ensemble. ñu mën a appliquer cette décision décision bi kenn jëlu ko pour pour lu métti nit ñi mais dañ ko jël rek pour en ñu fexe ba doomu jàngoro bi euh, gën a wàññeeku suñu département de Dakar moo waral jébbal nañ koy yónnee nañ ko les préfet ak commissaire parce que applicabilité bi sur le terrain c'est le commissaire qui aura euh, la latitude de faire appliquer la mesure. Mmh. première vague ba mu wàññeekoo la commune avait toujours un stock qui lui permettait d'agir parce que man maay responsable stock boobu donc boobu ba léegi même bi mbas mi wàññeekoo ñoo ngi continuer di jàppale askan wi di jàppale structure yi di jàppale produit moo waral waa marché yi waxtaan na ñoom ñoom ba insha allah tey wala suba dinañ jot benn stock boo xam ni dina leen mën a permettre ñu mettre en place un dispositif de lavage des ñu mën a àndandoon a xeex doomu jàngoro bi parce que gis nga lii ñuy bàyyi bu continuer gën du ci mucc te bu boobaa nag liy metti ci ñun lay jóge donc ñuy invité waat askan wi rek c'est vrai que metti na mais ensemble nañu jéem a takkaat suñu ceinture pour mën a xeex doomu jàngoro bi ci ñaareelum pàccum mbas mi di covid 19 nguurub Sénégal jëloon ay mesures bokk na ci itam wàllum couvre-feu juróom-ñeenti waxtu ci guddi jàpp juróomi waxtu ci fajar gi dogal bu ni mel nag ñu bari ci askan wi am jafe-jafe ngir sàmmoog moom bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo di ndaw yi ba tax na nag mu juroon na jàppante bu tar ci seen diggante ak takk yi Babacar Tambidou di coordonnateur PASTEF fii ci diwaanu Grand Yoff gis ne daal bi les amul benn sens ndax kat lii di dajaloo yi ñu ngi koy nemmeeku bu baax a baax bëccëg gi fii ci réewum Sénégal. en ce qui concerne mesures yi nga xam jël nañ ko fan yi couvre-feu bi ñun dañ jàpp ni c'est vraiment c'était inutile il fallait pas parce que dama gis ni bu fekkee ni sénégalais yi bëccëg bi ñu leen di bàyyi ñuy jonjoo di dem ci marché yi di dem ci école yi ah di dem ci liggéeyukaay yi di dugg ci bus yi tàncaloo ah foofu kenn taraw fekk kenn ñu bàyyi ba guddi nga xam ne surtout ak jamono seddaay bi ñu nekk nii nga xam ne nit ñi fu huit heures neuf heures ku nekk mi ngi ou bien c'est un test ou quoi on comp on comprend pas franchement ñun des fois dañoo se pose la question Macky Sall gouvernement ñoom lan la qu'est-ce qu'ils font ba cest à ce qu'ils ont des conseils parce que très honnêtement sincèrement lii ñëpp ñëpp ñëpp xam nañ ne à l'unanimité que ni amul sens le couvre-feu la nga xam ne il ne fi fitna tout ce qu'ils ont réussi à faire mooy yàqal ñi nga xam ne ñu ngi yëngatu ci seen wàllu liggéey xam nga donc mu ñi nga xam ne jaay guddi gi muy borom restaurant yi borom fast food yi borom tànganaay consort tous ces gens là nga xam ni euh, ñoom guddi la liggéey pour am lu ñu yóbbu seen kër ñu yàqal leen seen seen seen seen gagne donc couvre-feu bi amul sens dañu xool beneen solution mais lii moom du solution taxawaayu mbas mi jamono ji ci réew mi tax nag ba église bi jëlaat yeneen i dogal ngir jàpp ci xeex bi ñu jagleel mbas mi ci réew réewum Sénégal abbé Alphonse Birane Ndour di curé bu paroisse Saint-Paul fii ci diwaanu Grand Yoff. xam ngeen ne ca njëlbeen loraange bi duggee ci suñu dëkk ba léegi. ñu ngi jéem a topp ndigle yi nga xamante ni moom la ñu amal ngir dàkkal lii leen di wàllaatewu mbir mu doy waar gi am na ay ndogal yu bëri yoo xamante ne jël nañu ko. ko ngir vraiment yéen ñi njëkk waaye surtout ngir ñaax nit ñi ñu gën a saafanteeg li nga xamante ni moom moo di li leen euh, war ci euh, topp ndiglewu waa kay docteur ñu koy ooy mesure barrière ci biir loolu nag mu am ci wàllu rob li nga xamante ni moom la ñu nas mu di ñaar fukki nit ak juróom dong la ñu may ci njaboot gi ñu mun a egg ba ca sëgg ya fa nga xamante ni foofu la ñuy robee nit ki waaye laata loolu mees gi ñuy amal ci biir jàngu bi ci kaw topp encore une fois de plus lépp li ñu war ngir dandalante gi mun a mët ñu may nit ñi ñu mën a jàng mees jàngal way làqu ji ngir gannaaw loolu ñu robbi ko ca cimetière ya ci foofee la ci cimetière ya muy ci wàllu njaale gi nga xamante moo ci war la ñu santaane la ñuy dem di dajaloo ci kër néew ga wala fële cay nañu yéene li nga xamante ni moom la ñu bëgg njaboot gi jaarale ko ci téléphone wala jaarale ko ci message ndaxte déjà njàngaatu mees bi rek amul lenn lu ko raw ci wàllu gunge gi nga xamante ni làqu na ndaxte ñaan la bu ñuy dënk nit kile le borom bi suñu yàlla ba fii toll ni nag ñu ngi topp ndigle yooyu sant yàlla te vraiment dafa di loo xamante ni mu wone na xëy na naam tollaayu xelu ku nekk ndaxte xëy na nit ku ku mu sañoon nit bu fi jógee la ko war mu mun ko mattali ba ca péegu sax bàmmeel ga waaye ci tollaayu jamono gi ñu nekk wax dëgg yàlla li ñu ñor moo di ñu mën a dàqal mbas mi le ngir mu teel fee jóge ñu dellu si waat ci doon dund te borom yàlla barkeel ñu ci loolu. xeex bi gën a dëgër gaaw jàkka yeeg jumaa yi itam donte sax nit ñaa ngay wéy di fa jaamu yàlla waaye imaam yi jël nañu seeni matuwaay ngir jàngoro ji bañ fa lawee bu nu sukkandikoo ci ay kàddu sëriñ Jéey di imaam ca jàkka Yoff doonit it sëriñ daara. fekkee feebar dafa am ba nar ñoo tàqaleeg jaamu yàlla loolu tamit dañuy dugg si njuumte waaye nag comme ni nga waxee dañoo war a organiser wu mu am nizaam nizaam mooy jàkk yi imaam ya fay jiite ñu wut ay ndaw ñu taxaw si bunt yi bunt bu ne ñu teg faraxasukaay ku sàmmoon sàmmontewul ak ma yooyu ñu laaxe biir la nga toog jullee sa kër parce que laa dara wala diraara yonente daf ñu jàngaloon ne bu leen loru bu leen lore ah kon nag imaam yi nekk si jumaa yi ñoom ñoo fay njiit parce que imaam mooy lan mooy jiit te imaam bu ne imaam buñ ko féete la ñu nekk si jàkk ja directeur imaam la président imaam la père de famille imaam la képp dañ laa jiital fenn yow imaam nga fañ la jiital nag na fa taxaw taxawaayu imaam mooy nga fexe ba muccal saw askan jox leen ay ndigal dimbali leen ba nu mën a mucc si wabaa boobu. bu fekkee ne nag ci këru yàlla yi jël nañu ay matuwaay ngir aaru ci mbas mi ci daara yi moom dandante doon na loo xamante ni dina jafe lool ngir ndongo yi daal di koy jëfee li ko waral nag di ñàkk ndimbal bi war bu nu sukkandikoo waat ci ay kaddu oustaz Serigne Dieye. bu dee daara yi man mii di wax ak yow daara am naa ci expérience 97 ba 2007 maa ngi ko def si daara daara ndongo daara laa wax. kon xam naa daara rythme ba fa nekk bu dee mbas mi moom daara wax dëgg yàlla ni ñuy dundee pour ñu mucc si dina doy waar bu dee nag daara yi nu ñu fa war a nekkee dina difficile lool su ma la waxee dëgg parce que ñun ay sufuuf la ñuy def ay sàppe du ñu toog si ay banc te sàppe da ngay gis mbagg ak mbagg ñuy riisu su fekkee daara yi nag bu dee si dafa ñëw si daara yi lépp tamit mën naa nekk mu ngi tënku rek si nizaam mooy lu ñuy wax organisation bu ñu ko organiser rek yàlla mën nañoo dimbali ba ñu mucc mais tey jii damay wax rek fii sabilillah damay wax te yàlla tax tey ñaari doomu Sénégal ñoo am dafa am ku ñuy wax étudiant muy tullaab am ku ñuy woowee tullaab tamit mooy ndonga daara parce que taalib mooy kuy sàkku xam-xam pourtant ñi nekk ndonga daara yi dañuy sàkku xam-xam waaye tey dafa mel ni dañ leen a beddi parce que suñu état préparé wul daara yi jox leen matuwaay yi ñu war a jëfandikoo tey boo demee si daara yi ay bonne volonté rek ñoo fay yóbbu seen alal waaye tey amul benn don boo xamante ne état da koy jox ndongo daara daara yi alxuraan yi comme ni mu koy defalee école français bu ñu jëlee matuwaay yi ñu yóbbu si école français yóbbu ko si daara yi ñooñu yàlla dina leen def ñu organiser leen ba ñu am cet am ay masque dandante distance bi yëpp ñu respecté ko loolu nag pour mu mën a nekk si daara yi day am accompagnement état da leen di jox seen àq ak seen yelleef comme ni mu ko defalee ñu nekk si école français daara yi ma xam yëpp fii yoof ñu ngi respecté distance yi am na sax ñu wàññi nombre de élèves yi loolu am na sax ñu tëjoon loolu yëpp pour lan pour dimbalante. fii nag ci réewum Sénégal am na bërëb yoo xamante ni dajaloo mënu faa ñàkk bokk na ci transport en commun bi marché yi. ci bërëb yu ni mel nag jël fa matuwaay doon li war bokk na ci nag sàmmoo ko mesure barrière yi bu dajaloo amee yan matuwaay la ñu war a jël ngir mbas mi bañ a law docteur Diedhiou di ci indi ay leeral la lu may recommander mooy euh, bu waree am situation dajaloo comme par exemple ay mariage ay jàng juma ay cérémonies religieuses wala dugg gaarage pour ci wala ci arrêt car yi cetera donc euh, surtout dañuy war a d'abord recommander nit ñi balaa dem ci mbooloom boobu ñu yóbbaale d'abord masque yóbbaale masque suñ ko amul ñu organiser fête bi tam ñu bàyyi fa masque comme ça ku ñëw ku amul masque ñu jox ko masque boobu mooy première recommandation te masque boobu dafa war a muur jëmiñ bi muur bakkan bi boo amee keneen ku tisoli bu mun a jàll ci jëmeñ bi wala egg ci bakkan bi donc deuxièmement euh, ñu organiser euh, kii bi dajaloo bi war nañu mettre benn dispositif maanaam ñu def ci benn fu ñu xam ne mën nañ fa raxas suñu loxo ak saabu ak ndox buñ ko defee loolu dina tax képp ku indaale feebar bi au moins boo raxasoo dina wàññi feebar bi. képp koo xamante ne am nga màndarga yi nga bañ a dem ci xew bi mooy am nga fièvre donc sa yaram dafa tàng am nga bop buy métti donc moo. ou bien c'est un test ou quoi on comp comprend pas franchement ñun des fois dañoo se pose la question Macky Sall gouvernement ñoom lan la qu'est-ce qu'ils font ba cest à ce qu'ils ont des conseillers parce que très honnêtement sincèrement lii ñëpp ñëpp ñëpp xam nañ ne l'unanimité que ni amul sens le couvre-feu la nga xam ne instauré il ne fi fitna tout ce qu'ils ont réussi à mooy yàqal ñi nga xam ne ñu ngi yëngatu ci ci ci seen wàllu liggéey xam nga donc mu ñi nga xam ne dañuy jaay guddi gi muy borom restaurant yi borom fast food yi borom tànganaay consort tous ces gens là nga xam ni euh, ñoom guddi la liggéey pour am lu ñuy seen kër ñu yàqal leen seen seen seen seen gagne moom donc couvre-feu bi amul sens dañu xool beneen solution mais lii moom du solution wàccuwaayu mbas mi jamono ji ci réew mi tax nag ba église bi jëlaat yeneen i dogal ngir jàpp ci xeex bi ñu jagleel mbas mi ci réew réewum Sénégal abbé Alphonse Birane Ndour di curé bu paroisse Saint-Paul fii ci diwaanu Grand Yoff. xam ngeen ne ca njëlbeen loraange bi duggee ci suñu dëkk ba léegi ñu ngi jéem a topp ndigle yi nga xamante ni moom la ñu amal ngir dàkkal lii leen di wàllaatewu mbir mu doy waar gi am na ay ndogal yu bëri yoo xamante ne jël nañu ko ngir vraiment yéen ñi njëkk waaye surtout ngir ñaax nit ñi ñu gën a saafanteeg li nga xamante ni moom moo di li leen euh, war ci euh, topp ndiglewu waa kay docteur ñu koy ooy mesure barrière ci biir loolu nag mu am ci wàllu rob li nga xamante ni moom la ñu nas mu di ñaar fukki nit ak juróom dong la ñu may ci njaboot gi ñu mun a egg ba ca sëgg ya fa nga xamante ni foofu la ñuy robee nit ki waaye laata loolu mees gi ñuy amal ci biir jàngu bi ci kaw topp encore une fois de plus ngir dandalante gi mën a mët ñu may nit ñi ñu mën a jàng mees jàngal way làqu ji ngir gannaaw loolu ñu robbi ko ca cimetière yi ci foofee la ci cimetière yi muy ci wàllu njaale gi nga xamante moo ci war lañu santaane la ñuy dem di dajaloo ci kër néew ga wala fële cay nañu yéene li nga xamante ni moom la ñu bëgg njaboot gi jaarale ko ci téléphone wala jaarale ko ci message ndaxte déjà njàngaatu mees bi rek amul lenn lu ko raw ci wàllu gunge ki nga xamante ni làqu yàqu ndaxte ñaan la bu ñuy dënk nit kile borom bi suñu yàlla ba fii toll ni nag ñu ngi topp ndigle yooyu sant yàlla te vraiment dafa di loo xamante ni mu wane na xëy na naam tollaayu xelu ku nekk ndaxte xëy na nit ku ku mu sañoon nit bu fi jógee la ko war mu mun ko mattali ba ca péegu sax bàmmeel ga waaye ci tollaayu jamono gi ñu nekk wax dëgg yàlla euh, li ñu ñor moo di ñu mën a dàqal mbas mi le ngir mu teel fee jóge ñu dellu si waat ci li ñu doon dund te borom bi suñu yàlla yàlla barkeel ñu ci loolu. abbé Alphonse Birane Ndour di dellu siwaat itam di ñaax ñi nga xamante ni ñoo di ndaw yi ñu sàllook bu baax a baax li nga xamante ni moo di mesure barrière yi waaye jàpp bu baax a baax ci xeex bi nga xamante ni dañ ko jagleel mbas mi ndax ñoom ñoo ñee di ndaw yi pàcc bu am solo lañ ci am. waaw ci njëkk ba dañu doon naan ah déet xale yi de xëy na mbas mi bu dalee seen kaw itamit du indi loraange parce que xëy na ñoo gën a toll seen digg doole waaye tey gis nañu loole ñu doon wax démb xëy na mun nañ ko war a seetaat tey parce que comme ni mu ko doon waxee sànq rek ñi ci gën a bëri di dee tey bokk na ci waxambaane yi jeunes yi tey ci suba rek maa ngi leer ci journaux yi ne am na benn waxambaane euh, benn ndongo daara fële ca ESP. nga xamante ni euh, yàlla jël na ko tey ci mbas mi. kon tey fu mu nekk nii nekkatul donc aar sa bopp ngir aar say waajur wala maam yeeg euh, ndey yaag bàyyi nekk ca kër ga. Mm-hmm. waaye tey doonati na aar sa bopp yow ci sa bopp ci li nga xamante ni mbas mi mun na la lor kon dañooy ñaax waxambaane yi rek ñu gën a góorgóorlu mbir mi yàggul. coono yàggut borom bi day natt nit ba mu doy ko mu koy doog a nattu kon nattu gi ñu borom bi teg fi mu toll nii baax na ñu xamal nañu ne ñun ñoo ko mën a teggil suñu bopp ci kaw dëgg la ngëm gi ñu am di ñaan borom bi suñu yàlla saay bu ko neexee la koy dàkkal waaye itamit yàlla yàlla béy sa tool kon na waxambaane yi góor góorgóorlu ci mbir mi le te ñu bañ ko jëlee ni ki ay caaxaan wala ay naxee mbaay am na ñu bëri ba tey fi ñuy toll yi di wax ak yow ñoo xam ne gëmuñu ci euh, lu jëm ci mbas mi ñu leen di xamal rekk ni buñ ko gëmul it ñoom nañu xam ne ñu ngi dund ak ñu ko gëm nañu xam nañu ngi koy dund ak ñoo xamante ni mbas mi dal na leen ba noppi am na ñu ci mucc waaye am na ñoo xamante ni ñu ngi ca sëgg ya kon vraiment nañu jéem a góorgóorlu boo xoolee ci mbedu Grand am nañu ñu bëri ñuy doxantu nii solu soluñu masque saafontewuñu ak li nga xamante ne mooy dandalante bi et vraiment def ñuy métti ñun bu ñu gisee loolu moo tax maa ngi ñaax vraiment euh, askanu Grand Yoff yëpp population bi yëpp ñu jéem a góorgóorlu ci li jëm ci wàllu xeex mbas mi le ndaxte gaaw gaaw ñu xeex ko xeex bi gën a dëgër gaaw gaaw mu jóge ci jàkka yeeg jumaa yi itam donte sax nit ñaa ngay wéy di fa jaamu yàlla waaye imaam yi jël nañu seeni matuwaay ngir jàngoro ji bañ fa lawee bu nu sukkandikoo ci ay kàddu sëriñ Jéey di imaam ca jàkkay Yoof doon it sëriñ daara fekkee feebar dafa am ba nar ñoo tàqaleeg jaamu yàlla loolu tamit dañuy dugg si njuumte waaye nag comme ni nga waxee dañoo war a organiser wu mu am nizaam nizaam mooy lan jàkk yi imaam ya fay jiite ñu wut ay ndaw ñu taxaw si bunt yi bunta bu ne ñu teg faraxasukaay ku sàmmontewul ak worma yooyu ñu laaxe biir la nga toog jullee sa kër parce que la dara wala diraara yonente daf ñu jàngaloon ne bu leen loru bu leen lore ah kon nag imaam yi nekk si jumaa yi ñoom ñoo fay njiit parce que imaam mooy lan mooy njiit te imaam bu nee imaam buñ ko féete la nekk si jàkk ja directeur imaam la président imaam la per de famille imaam la képp koo xamante ne rek dañ laa jiital fenn yow imaam nga fañ la jiital nag na nga fa taxaw taxawaayu imaam mooy nga fexe ba muccal saw askan jox leen ay ndigal dimbali leen ba nu mën a mucc si wabaa boobu. bu fekkee ne nag ci këru yàlla yi jël nañu ay matuwaay ngir aaru ci mbas mi ci daara yi moom dandante doon na loo xamante ni dina jafe lool ngir ndongo yi daal di koy jëfee li ko waral nag di ñàkk ndimbal bi war bu nu sukkandikoo waat ci ay kàddu oustaz Serigne Dieye. bu dee daara yi man mii di wax ak yow daara am naa ci expérience 97 ba 2007 maa ngi ko def si daara daara ndongo daara laa wax. kon xam naa daara rythme ba fa nekk bu dee mbas mi moom daara wax dëgg yàlla ni ñuy dundee pour ñu mucc si dina doy waar bu dee nag daara yi nu ñu fa war a nekkee dina difficile lool su ma la waxee dëgg parce que ñun ay sufuuf la ñuy def ay sàppe du ñu toog si ay banc te sàppe dangay gis mbagg ak mbagg ñuy riisu su fekkee daara yi nag bu dee si dafa ñëw si daara yi lépp tamit mën naa nekk mu ngi tënku rek si nizaam mooy li ñuy wax organisation bu buñ ko organiser rek yàlla mën nañoo dimbali ba ñu mucc mais tey jii damay wax rek fii sabilillah damay wax te yàlla tax tey ñaari doomu Sénégal ñoo am dafa am ku ñuy wax étudiant muy tullaab am ku ñuy woowee tullaab tamit mooy ndonga daara parce que taalib mooy kuy sàkku xam-xam pourtant ñi nekk ndonga daara yi dañuy sàkku xam-xam waaye tey dafa mel ni dañ leen a beddi parce que suñu état préparé wul daara yi jox leen matuwaay yi ñu war a jëfandikoo tey boo demee si daara yi ay bonne volonté rek ñoo fay yóbbu seen alal waaye tey amul benn don boo xamante ne état da koy jox ndongo daara daara yi alxuraan yi comme ni mu koy defalee école bu ñu jëlee matuwaay yi ñu yóbbu si école français yóbbu ko si daara yi ñooñu yàlla dina leen def ñu organiser leen ba ñu am cet am ay masque dandante distance bi yëpp ñu respecté ko loolu nag pour mu mën a nekk si daara yi day am accompagnement état da leen di jox seen ak ak seen yelleef comme ni mu ko defalee ñu nekk si école francais yi daara yi ma xam yëpp fii yoof ñu ngi respecté distance yi am na sax ñu wàññi nombre de élèves yi loolu am na sax ñu tëjoon loolu yëpp pour lan pour dimbalante fii nag ci réewum Sénégal am na bërëb yoo xamante ni dajaloo mënu fa ñàkk bokk na ci transport en commun bi marché yi ci bërëb yu ni mel nag jël fa matuwaay doon li war bokk na ci nag sàmmoo ko mesure barrière yi bu dajaloo amee yan matuwaay la ñu war a jël ngir mbas mi bañ law docteur Diedhiou di ci indi ay leeral la lu may recommander mooy euh, bu waree am situation dajaloo comme par exemple ay mariage ay jàng juma ay cérémonie religieuse wala dugg gaarage pour ci wala ci arrêt car yi et cetera donc euh, surtout dañuy war a d'abord recommander nit ñi balaa dem ci mbooloom boobu ñu yóbbaale d'abord masque yóbbaale masque suñ ko amul ñu organiser fête bi tam ñu bàyyi fa masque comme ça ku ñëw ku amul masque ñu jox ko masque boobu mooy première recommandation te masque boobu dafa war a muur jëmiñ bi muur bakkan bi boo amee keneen ku tisoli mu mun a jàll ci jëmeñ bi wala egg ci bakkan bi donc deuxièmement euh, ñu organiser euh, kii bi dajaloo bi war nañu mettre benn dispositif maanaam ñu def ci benn fu ñu xam ne mën nañ fa raxas suñu loxo ak saabu ak ndox buñ ko defee loolu dina tax képp ku indaale feebar bi au moins boo raxasoo dina wàññi feebar bi képp koo xamante ne am nga mandarga yi nga bañ a dem ci xew bi mooy am nga fièvre donc sa yaram dafa tàng am nga bopp buy métti donc maux de tête wala yaa ngi sentir da nga am benn coono boo xam dafa la def ay courbature wala mu def ngay sëxat nga sentir ni da nga am sa gorge bi day métti nii te da nga am soj da ngaa soj mais surtout surtout koo xamante ne sentir nga ni yow amatoo gu boo lekkee doo santir goût bi te aussi sa odorat bi perte nga ko maanaam da ngay sentir ni yow doo doo xeet dara même nit bu laaloon parfum naw nekk sa kanam maanaam doo sentir parfum bi boo amee genre signe yooyu maa ngi lay vraiment euh, digal nga bañ a dem ci xew boobu ci rassemblement boobu parce que boo fa demee su fekkee da yor feebar bi immédiatement da ngay wàll ñeneen ñi li mu leen digal mooy nga dem hôpital donc signe yooyu nag képp ko am te nga dem ci mbooloo nga xam ne da ngaa bëgg a wàllee rek moo tax nga dem fa ñuy ñëw ci biir xew bi ñu bañ a nuyonte loolu xam naa boo ko waxee sénégalais dina métti parce que sénégal daa bëgg jàmm day ñëw bu gisee moromam rek commencé di tëb ci moom di ñu mais dañoo xam ne ñu ngi ci situation boo xamante di def ko massacre donc nañu moytu loolu donc bañ a nuyonte mun nañu taxaw waxante nii mais bañ a nuyonte donc euh, du question du nuyonte ci jëmiñ mais mun nañu waxante alors nga def yaa ngi ci yaa mais bañ a joxante loxo loolu laa bëgg a wax ci bañ a nuyonte nañuy éviter distanciation physique nañuy fexe ba ñi jegalante bi ñi bayante benn mètre entre ñaari nit loolu dina jafe ci mbooloo mais loolu mooy yoon buñ ko defee day tax ba feebar ba kenn bu ko amee du wàll moroomam donc loolu aussi ça fait partie si solution yi dernière solution bi ku nekk na nga takk masque bu du jël masque bi teg ko ci sa sikkin bi déedéet da nga jël masque mu muur donc bakkan bi muuraale jëmeñ bi loolu am na solo trop te ñu invité jël masque yoo xam ne dafa salte ba noppi maa ngi ñaax ñëpp donc ñu respecter mesures barrières yoo xamante ne ministre de la santé daf ko digle ñi ñi aussi comme ni ngeen ko gisee ak couvre-feu bi nit ñi dañuy xaar ba 18 heures ñuy dem di xëccoo ay kaar loolu aussi day indi day lawal feebar bi également képp ku nekkoon ci dajaloo soo yéegee sa kër balaa dugg ci kër gi maa ngi lay ñaax aussi nga raxas a loxo balaa dugg ci kër gi wala soo amul ndox soo amee également gel hydroalcoolique nga koy jëfandikoo. jamono ji nag ñu nekk ci ñaareelum pàccum mbas mi fii ci réewum Sénégal ñu jóge nag ci état d'urgence wutali état de catastrophe naturel et crise sanitaire mu di tëralin boo xamante ni dafa jóge ci assemblée nationale di dooleel njiitum réew mi Macky Sall Sall mu jël ay dogal yu gaaw ngir xeex mbas mi te du jaar ci assemblée nationale mu des nag ci ñi séq gouvernement bi gouverneur yi ak préfet yi ñu fexe ba askan wi sàlloo ko mesure yi mu di di faral di raxas loxo yi ak ndox ak saabu wala ñuy jëfandikoo gel hydroalcoolique respecter distanciation physique maanaam di dandante lu toll ci benn mètre di sol maski yi saa su nekk waaye it bokk na ci li ci gën a am solo moytandiku lépp luy dajaloo ndax loolee bokk na ci li mën a dakkal mbas mi di law laata vaccin bi di dugg si ci réewum Sénégal ci njeextalu weeru mars jëm ci initiative COVAX jóge ci organisation mondiale de la santé di OMS mi jiite wér gu yaram ci àddina wërngal képp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 garab yu baax la yomb te wóor te ngeen soxla ko fépp fu ngeen nekk te mu jëm ci ñëpp ñu xamal leen ne naa mu ngi ci région yi nekk ci Sénégal yépp jëm ci wàllu campagne bi ñeel wàllum ñaax ak taxawaayu askan wi ci mbas mi di Covid 19 seen émission meilleure santé di leen dig ab daje dimanche juróom-ñaari fan ci weeru février bu 12h jotee jàpp 12h30 ñu fas yéene waxtaanee ponk bi ñeel dajaloo bi naka la mën a lawalee wopp gi di coronavirus di ab production bu leen may mën a saar di digtal ñu ciy dalal ñi seen xamxam xam màcc ci wàllu woowu dimanche lay doon juróom-ñaari fan ci weeru février bu 12 jàpp te ci Afia FM ci seen émission meilleure santé.